très bien. Il se nomme tout simplement Mam Dia et sa bande, après 22 ans d'expérience, aujourd'hui, il nous sort un album composé, bien sûr, de six titres. Album B, euh, il se nomme Dieuf, euh, donc Mouindanan Koulifadrine. Mais aussi, c'est vrai, on a, on a perdu, encore une fois, le Sénégal, la culture sénégalaise, la musique sénégalaise, le showbiz

fàttaliku euh, bu baax mu doon nag loo xam ni ni metti na askanu Sénégal ñi nga xam aussi ñi ngi ci sous région parce que ba aussi xamoon nañ ko fa euh, kon muy une grande perte parce que il avait une voix quand même hamne que ça sortait de l'ordinaire et malgré tout euh, on le connaissait très discret

Euh, mais du Youssou kessel kese la jot a collaboré di jël tamit ay morceaux Youssou Ndour di ko woyaat di muy mel Ndour moo koy ah. exactement exactement donc loolu taxone ba vraiment euh, ñu bari fi ci Sénégal euh, sopone ko loolu moom muy woy kon soppe yi mhm. mais du won Youssou Ndour kese la en collaboration parce que boo c'était lu ci mel This is la peste sant yàlla on wayon nako ak mom Kerry James aussi mhm. kon nak mi ngi noonu c'est une grande perte pour pour nous tous mhm. parce que mi ngi doon waajal aussi aussi euh, sorti albumam euh, le 4 février prochain Nous naa ko tuddee donc intérêt général ci réglage joyeux ça la nekkoon ba ko malaise bi jotee euh, biir studio comme moom muy d'accord très bien donc ci kanam tout à l'heure incha allah dinañ ci gën a ànd ak yow mu gën a fës ci portrait bi nga xamante ne dañuy gën a xam kan mooy Ablaye Mbaye c'est important donc après bien sûr 1981 ba 2017 aujourd'hui il est parti donc nous koy ñaanal que la que la terre lui soit légère paix à son âme kooku mooy Abdoulaye Ablaye Mbaye def na fi ay jéego def fi ay duo euh, pratiquement avec euh, ñi nga xamantene ñom ñoo musique sénégalaise hein. donc ay Abdou Guité Sek ay Fallou Dieng hein, pour euh, en citer donc ci kanam tuuti Léna Sarr dinañ ci ànd ak ci li nga xamantene mom moy portrait bi nga xamantene ne Léna Sarr préparé nañu ko ci kanam dinañ ko découvrir mais en même temps on est en compagnie de Mam Abdouja, Dia Abdouja et sa bande Mam Abdouja Dia andak Walian ak Mam Abdouja Abdou Dia tey ngi def carrière solo mais suma ma ne la kan moy Abdoulaye Ablaye Mbaye lan nga may mëna bah, mais li ma la ci wax c'est un grand c'est un grand artiste. Mm. waaw ku parce que koo xam ne que adduna bi xam ko. Mm. ak vraiment kooku tey buñ ko perte Sénégal yëpp ko perte adduna bi ñoo perte. tout à fait parce que moi je l'ai connu à Unas laa ko ça me donne copain non voyant bu mu doon àndal bu ñuy wax. Mm. woy na sax morceau boobu école Unas. woy ko ci premier album moi moi ni la demee. ok viens ngoom bon donc faut faire xamante vraiment après doon nañu déggante téléphone souvent parce que comme copain boobu moom moo taxoon mais tey vraiment Sénégal. Euh, nen euh, aduna bi aussi mm. bon famille bi mm. xaritam tout à fait très bien merci beaucoup Mme Abdouja tout à l'heure dinañ ci ci wat légui ci carrière am expérience bi nga euh, parce que euh, limi def musique muy musique variété c'est important donc gis ngeen morceau bu am solo bi nga la dans toi même tu sais plus haut plus loin plus fort tous ensemble et pour le sommaire de ce soir comme on a l'habitude de le faire en compagnie de Adiara, Sissé Madame Bonardi pour nous donner donné les propos recueillis fraîchement de l'internet n'est naa du sos du créer waye lepp lu mu yek mu dem ci kaw ci kanam ci lu bax dañuy and ak euh, Top Sadir Sadir Top euh, momit muy ndanan di def jéego yu am solo ci rédaction bi nga xamante moy DTV rawti ci doli euh, ci biir toi même tu sais tay nak muy indil ñu ben ndanan bo xamante mu ngi wuyo ci turu monsieur bounam Sall monsieur bounam Sall muy responsable des jeunes socialistes chargé de com du ministre Serigne Mbaye Thiam ñu naka waxtaanee li nga xamante mom moy PS Tanor Ram pour maki un point d'interrogation loolu lañ ko wax waaye dinañ ci gën a pour traiter l'actualité politique et sociale mais xam ngeen Léna Sarr euh, elle fait bien sûr la fierté de la rubrique Actu Culture euh, comme tous les mardis aujourd'hui, nag mu ñëw euh, ci biir Actu Culture mu indil ñu ki nga xamante man man c'est moom Arkam Niass di man donc mon muy artiste di graffeur di portraitiste di designer donc ni plasticien donc graffeur en même temps donc ci kanam tuuti dinañ waxtaan ak mom ah, ci lepp li nga xamantene da fay dem ci walu actualité nakh len ah, bu ñëwé rek traité ñu lolu nga xamantene mom moy mooy actu culture euh, bébé et maman euh, sera de la partie avec Fatima aujourd'hui elle va nous présenter la première application ludo euh, éducative africaine pour les enfants donc mu qui s'appelle Mia Moké donc ci kanam dinañ ci and ak Fatima dans sa rubrique bébé et maman donc mais non lañuy tamalé li nga xamantene mom moy toi-même tu sais en compagnie de Adjara Cissé pour nous présenter la première actualité de l'Internet. C'est parti. Eh bien, nous démarrons l'actualité de l'Internet. Tanor et Nias à quand la relève selon Sénégal, n'est-ce pas Adjara Effectivement, Nicolas, le Parti Socialiste et Alliance des Forces de Progrès AFP, euh, deux partis qui se consument à petit feu. Leurs leaders sont pointés du doigt par certains observateurs, voire même au sein de leurs partis respectifs. Ces derniers, en l'occurrence Ousmane Tanordien et Moustapha Nias, euh, respectivement secrétaires généraux euh, du PS et de l'AFP, sont accusés d'avoir fragiliser leur parti en se liant d'un contrat avec <clears throat> Macky Sall. Ainsi, après Ignace qui avait décidé euh, de livrer son parti pied et poing lié à Macky Sall malgré les récriminations et les protestations de part et d'autre euh, de la part de certains de leurs partisans qui s'étaient rebellés. Euh, c'est maintenant au tour de Tanor d'emboîter le pas à son ami. Très bien, donc c'est la première partie de l'actualité de l'Internet, toujours en compagnie de Madame Bonardi. Donc, l'Itigenefos Momoy. Tanor Ram pour maki lolou moy li nga xamantene dañ ko waxtaanee ci actualité ànd ak Sadikh waaye li ci gëna a moy euh, mooy Tanor et Niass euh, à quand la relève ñu ànd ceeg Sénégal en résumé Sadikh Top euh, lan lañ ci mëna jang ci li nga xamantene indi nañ ko ci première actualité Tanor et Niass à quand la relève waa li ci mën a jàng rek Nicolas gannaaw bi nga xamante ne nii nañ ñi ñu invité li ñu ci mën a jàng mooy parti socialiste ak AFP ay parti lañ yoo xam ne ñu euh, représentatif la ci réew mi mm-hmm. ñoom ay kilifa itam ku ci mel ni Ousmane Tanor Dieng nekk parti socialiste ak kii nga xam ne moo di Moustapha Niass ñoom nag seeni biir parti gis nañ ne coow am na fa loolu ñu ñëpp seetlu la ñu bëri nee nañ coow li moo di ñoom jeexal nañu te ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg relève mi di ay progressiste ba tey jii nii moo waral ñu jote ak ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa. parce que kilifa yi ba tey ñoom ñu ngi ci beneen bokk yaakaar mais ñeneen nañ bëgguñu moo xoolee ci bu mel ni AFP. gis nañ kii nga xam ne moo di Malick Gakou dem créé ji parti tuddee ko grand parti mais tey li xew ba ba ñu indi wax ji sax mooy coow li nga xam ne am nañ ko ci biir parti socialiste. te ñu jàpp ay ñoom Bamba Fall ak yeneen ndaw yoo xam ne jàppale nañ leen ba xalifa yi nga xam ne ñoom nee nañ bëggatuñoo ànd ak Macky Sall loolu indi coow bañ ne ñii kat ñu joxe relève bi nanguwuñu ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom nous euh, avons ñu am chance dans le domaine politique parce que nous, ku ci mel ni euh, Ousmane Tanor Dieng moom li wax présenté l'élection élection présidentielle kon biir parti socialiste qui ñu doon xalaat moo Khalifa Sall ñii nee neen dañ ko bañ a jox relève bi waaye lu mu ci mënti doon looloo indi li dans le domaine politique au Sénégal d'accord très bien merci beaucoup en résumé euh, Sadir Top mais dañ ci ànd ak monsieur Bounama responsable des jeunes socialistes chargé de com du ministre Serigne Mbaye Thiam donc ñu gis ne première actualité bi li muy wax mooy Tanor ak Thiès à quand la relève selon Sénégal loolu la Adjara Cissé euh, fësal euh, man li ma rek mooy euh, nañu 1996 à aujourd'hui 2017 li amoon ba président Abdou Diouf porté woon ki nga xamante ne moom mooy Tanor ci bopp li nga xamante ne moom parti socialiste mais ba tey ñu gis ne que Il fauteuil bi y a un souci jusqu'à présent te am na ci ñoo xamante ne xarañ nañu wala seen xel faire na lool pour ñu war a mën a ci bopp parti socialiste ah bon, merci. Merci pour l'invitation. D'abord, moi euh, profite, comme vous l'avez dit, qui début cette émission, di jaale Sénégalais gépp euh, ki nga xam ne suñu moroom na daanaka muy jeune di Ablaye Mbaye mm. suñu boroom euh, euh, moom ko ñuy ñaan yàlla xare ko aljanna di ñaan timit fi mu tegoon tànkam yàlla daal li mu liggéey lépp yàlla bu mu naax saay d'accord di présenter présenté suma naataango euh, artistes yi nga xam ne ñoom plateau bi ak yéen ñi nga xam ne yéen ci paysage médiatique bi doon bokk mhm, liggéey. Mhm. ginnaaw loolu tamit. Euh, congrès 1996. Euh, oui congrès YouTube ñuy sans débat. justement xam nga parfois dafa am dans la vie ay termes wala ay slogans yu nit ñi di retenir sans autant ñu xam le véritable contenu gis nga congrès nekul jour bi nit ñi ñëw rek dajanté bobu pratiquement mom moy ne liggéey bi ñu doon liggéey yépp pare na mu ñu ko bëgg clôturer en beauté. mu am communion entre les responsables du parti et les militants. congrès pour parti socialiste day tambalé ci ay weer ñuy renouveler comité jugee fa dem section jugee fa dem coordination jugee fa dem union de des coordination du fa doo dem union régionale hmm. su ñuy ñoo ñëpp en conformité avec le texte nous avons fait ne appel à candidature C'est l'ultime. il faut quand même le retenir et le reconnaître pour le parti socialiste Nous ne sommes que le premier parti politique de ce pays à organiser des primaires pour son poste de secrétaire général Justement parce que tout simplement, justement l'homme et l'homme et le monde l'homme évolue, le monde est dynamique. Par contre, nous devons suivre le rythme et la cadence. Mais pour autant, c'est nous le Parti socialiste qui avons été le premier parti ou la première formation politique à poser cet acte majeur de démocratie. Taïgi, sous Sénégal gépp di parti socialiste c'est parce que le parti socialiste est un parti de débat où chacun donne son point de vue. Il y en a de ces partis. Je, ne vais pas citer de parti, mais a des partis dans le paysage politique sénégalais Il y a parti socialiste des attitudes yu y a de ces gens qui ont fait moins que ça dans d'autres formations mm. politiques pour vous dire que hein. justement mais pour autant nous sommes des parti politique à égale dignité qui évolue dans le même secteur. Par conséquent, je sais que le Parti Socialiste, c'est le parti sénégalais. Les gens sont très exigeants à l'endroit du Parti Socialiste. Mmh. Mais pour autant, il faudrait que les gens reconnaissent aussi que le Parti Socialiste a fait des pas de géant dans la démocratie. Il n'y a pas de parti beaucoup plus démocratique que le Parti Socialiste dans ce pays. Dans la manière de... Mmh. Dans la manière de prendre des décisions parce que mhm. je sais que parmi d'entre vous am ñoo xam je pense que les journalistes ko gën a intéressé ci liggéeyam moom mooy les faits et moi je voudrais que les gens parlent des faits Vous mhm. parlez de ñu bàyyi à chacun chaque Sénégalais la liberté d'avoir son propre commentaire la relève justement mhm. je voudrais vous dire que la relève elle ne se décrète pas elle se travaille elle se construit parce qu'aujourd'hui, nous qui ki même comment moom yor sa njaboot sa doom ak sa jabar ñaan nga yàlla sax bu la fi yàlla jëlee nga ne su ma sañoon sama mbokk mi wala suma xarit bi moom moo lay wuutu xam nga loolu mënoo ko def mais yéene rek nga am ça veut dire que ne la des générations et de Senghor en passant ba mu agsi fii tey hmm. loolu c'est une histoire a créé des frustrations justement parce que la démocratie loolu moom mooy conséquence démocratie parce que bu fekkoon dañoo nekkoon dans un parti totalitaire dans un parti totalitaire, nit qui dangay wax ni ñepp pilier wu Mais aujourd'hui, c'est le seul parti au pays où vous voyez le secrétaire général guen dem fi, d'autres jël la position. Maintenant, la démocratie aussi hmm. a des normes et des prix. Parce que vous faites que dañoo taxaw né kan lo bëgg. Hmm. Nit yëkëti ñu né ana ñan ñoo wara voter. Ñu né ñi ki la très bien on y reviendra tout à l'heure c'est la première actualité de l'internet Léna ah, est-ce que tu partages l'avis de M. Bouna première actualité depuis un certain temps nous AFP PS c'est le même problème qui revient à chaque fois kañ de te je pense que aussi buñu jëlé cas wu PS kese parce que je pense que aussi euh, bokku na ci bu ñu jëlee exemple euh, Léopold Sédar Senghor mi nga xamné ni que waxuma parti bi sax mais réew mi ci bopam mm. la xajal ki nga xamné moy Abdou Diouf parce que dafa japp né que peut-être il était temps que mom mu dem Abdou Diouf aussi bu mu ñëwé ba mandat am jeex aussi il est parti il a laissé Tanor pourquoi nak ñom aussi du xalat xalaat buñ fi nekkatul kon PS ce que ça va devenir wala AFP biñ koy biñ koy biñ koy def biñ koy jox euh, lengue yi ci congrès bobu nonu ñi fàttali ko en 1996 dafa créer ay frustration hein ah, ci le ñom ay ku mel ni Robert Sagna ku ci melni ay Moustapha Niass ku ci melni ni Djibo Leyti Ka ah ñoom dañu génn ci lañuy ñuy génn ci euh, bateau li ñuy tuddee euh, bateau des verts hein à Sadikh Top frustration mom mënul ñak mais xam nga à l'époque aussi je pense pas que gravité bi demoon nekkoon na comme nu mu mel nii ba nga xam ne ni que dañ ci euh, divisé ou complètement ba ñu ci japp ñen ñi ak affaire yooyu fimu mm. nek ni parti bi dafa imploser carrément parce que dem na ba finalement ñom image bi ñu joxé à l'extérieur dafa ñaaw parce que parti bu soudéwul aussi man personnellement si je dois voter je vote pas pour un parti boo xam ne ni ma mm-hmm. aussi wanuma lenn loo xam ne ni que y a la cohésion au sein même du parti ñoo xam ne seen bi mënuñu déggoo nan la ñu mën aussi ba diriger li nga pays très bien merci beaucoup Léna Sarr euh, moo laaj Mame Mme Dia Mame Abdou euh, na ci yi mais est-ce que tey bu ñu dellu si waatee ci li nga xamante ne moom euh, parti socialiste ci seen i jamono est-ce que mus nga voter le parti socialiste

À quand la relève. À quand la hein? relève ci ci ci PS ak ci AFP. bon euh, en fait moi je suis pas trop politique quoi. bon mm. la plupart ñun jeunes bon ak euh, actualité et tout. Mm-hmm. bon yooyu duñ ko gën a suivre mais comme nous genre bon disons tamit dañu taxawaay si loolu quoi À quand la relève Pour moi, comme je a exemple par rapport à nous, on est des hommes de culture. bon boo le euh, village des arts vous fa demee ñu faisons fay bon ay paay nga fay fekk ñoo xam te ne là-bas pendant des années. Mm. bon vous ba bu fa jógee. Mm. bon je même ci seen liggéey même yéen ci ci wàllu culture bi dañu am jafe-jafe boobu noonu. jafe-jafe boobu quoi la relève à la relève ça vient de <laughs> ci boobu quoi. bon juste que comme euh, ni ko son mbokk artiste bi waxee. Mm-hmm. faut tamit euh, à un moment tamit euh, laisser la place. muy am alternance générationnelle comme ni ñu ko taamu di waxee. Mm-hmm. Adjara Cissé sa yaram bi yëpp a ngi maas parce que fu mu toll nii bi ñuy waxtaan ba <laughs> depuis saako ba léegi <laughs> très bien donc borom actualité dès delloowaat daal sa actualité. bon on se souvient. Euh, à la consultation électorale pour 2012 euh, après cela gisoon Tanor defoon ben sortie avec Jeune Afrique benn euh, journaliste mais soo di ko posé wax euh, bon est-ce que tu mën nañ attendre à ce que nga quitter mom lu mu tontu moy que ni que bon il que mu gagné que mu ñak gagné que ni mom dina xajal place bi les jeunes c'était en 2012 D'accord. alors on, on, supposait que ça sera Jean-Aminata Tal ça mhm. sera euh, les Khalifa Sall. Euh, bon, on faisait référence à beaucoup de jeunes à l'époque. Alors, tey bu ñu que ce sont ces mêmes jeunes nous ñoo quitté parti bi wan ko ginnaaw daal di bëgg amal seen yëf. mais amoon nga loo loolu taamu di wax fan yii ah, nee nga Tanor nee euh, PS géej la. Hein? Euh, PS dal géej la ndox la ku ah. ci génn. Ah bu ci génn da ngay <laughs> donc on se souvient de ça un peu paradoxal. parce que bu il se dédie lui-même en disant que même bu toogul sax moom dina xajal parti bi xale yi tey ñu gis ni quand même bras de fer am na ci seen mhm. donc un peu paradoxal. et même à chaque fois je me souviens euh, bi demee di di visiter musée bi c'était même pas il y a deux mois il y a même pas un mois et demi. Hein, on lui posait la question à savoir bi ñu demee kër Senghor bi musée bi. Euh, visiter musée on lui a demandé la question à savoir est-ce que on peut s'attendre à ce que euh, parti socialiste top, citable, top, euh, au moins on s'attendait à un recul par rapport à cette situation Le il nous a dit que nous, parti bu problème ñu amplifié alors quand on voit ça c'est un peu paradoxal tout le temps ça me revient à l'esprit. Mm-hmm. donc voilà c'était juste la chose que je voulais ajouter. très bien merci beaucoup pour la première actualité de l'internet toujours avec la sublime Bonardi li Moetanor Agnès a à quand la relève ñu à ci ak Sénégal du samay wax nous ci ñu euh, Top ngir traité actualité wu réew mi ci jamono crise euh, PS ñu Ramtil, pour euh, le président Macky Sall. waaw dugg nañ ci mbir mi sax daanaka parce que gis nañ li nga xam ne moo xew ci PS jamono ji xew-xew yooyu dem na ba am ñuy jàpp ba am ñoo xam ne tëj nañu leen loolu waral na tey jii ñu am invité ki nga xam ne moom mooy euh, ma Sall jiite ndaw ñu fee ca PS dañ ci laaj rek mooy bu naa ma gis nga situation bi am est-ce que jàpp nga ne ci biir parti foofu mooy première question bi jàpp nga ne ci biir parti ndaw yoo xamante ne sonn nañ ngir parti bi coow li matoon nañu koy yóbbu ci woon bay tëj ñii ba toppee leen tentative d'assassinat merci M. Top mais avant may ñëw ci question je voudrais éclairer tout ça, parce que mhm. comme on dit je suis venu pour représenter le parti socialiste si le parti socialiste est interpellé j'aurais bien aimé que ce Vartan mu xaw équilibré temps pour moi, très bien bon <clears throat> vous ne l'avez pas fait sciemment je comprends mais je koy rappeler pour euh, vraiment permettre à ce que timide parti bi may représenté expliquer parce que cette information c'est hmm. pas pour pour sénégalais justement hmm. donc je voudrais rappeler justement je voudrais je voudrais rappeler que émission bi du def le procès du parti socialiste parce que le parti socialiste ce sont les militants les plus de 400 000 militants yi ci bokk le parti socialiste c'est à eux que revient pour ban orientation de parti socialiste je voudrais dire que mais kon da nga xeeb lecture bi ñuy def ni? jàppoo nekk ne ñun ay mm. membres yu PS lañ jàppoo ko. bon parce que dem nga ba laaj nit ndax da ngay voté. Mm. alors que demaguñu élection. parce que d'ici non je veux dire je veux dire. dama ko dama ko interpellé en tant que ancien. justement non parce que bu 96. Mm-hmm. ah euh, donc bu may wax PS sax laay bëgg a wax. Euh, mm-hmm. ñaata élection moo fi jot a PS 40 ans la fi la fi toog daanaka 2000 ah, la doog dem euh, opposition. ci biir am na ay ñaata élection. ci élection yooyu noonu la base wu. wax ak moom di ko laaj.

amaat tas na wala tasaatul ña fa génnoon ànd tas nañu wala ba léegi dañoo ànd comme dynamique boobu. xam nga dañu waxoon ñoom seen i non je je je donne un exemple pour vous dire que. Mhm. jamono ji fii ñu toll gis nga parti politique mi ngi mel ne train gaar bu mu yegg dina am ñu wàcc am ñu yegg. Mmh. cela veut dire que cela ne va pas dire même si biir tarixa sax di nga gis ko xam day nek lii ba si ak mu jóge dem feulé parce que peut-être ti jamono amna ay incident wala ay activité yo xam mom moy mooy conforté gëm-gëmam wala mu génn ci mmh. benen élément bi bima bëggone wax légui comme li nga wax nga né comparaison n'est pas raison mmh. parce que comme je le dis Tanor ne rampe pas pour Macky il rampe pour le Sénégal et cela ne date pas d'aujourd'hui et su ngeen voulez, dara je vous renvoie à son discours biñ koy installé comme secrétaire comme président du Haut Conseil des collectivités locales. D'accord. c'est un serviteur de la nation et servir la nation c'est pas seulement au pouvoir Tanor a servi le pouvoir le pays au pouvoir comme il l'a servi dans l'opposition parce que wax barina, mais en 2012 Abdoulaye Wade la c'est le seul qui a été là opposé à ak Abdoulaye frontalement sans compromis ci ci et ce que les gens aussi disent par rapport par à ta question Tanor vous l'avez vu sénégalais pendant 12 ans wax bu bu nek tek nañ ko ci mus ngeen ko dégg mu yëkëti ils tontu nit wala mu wax nit pay ce n'est pas sa personne sénégalais c'est émission yi vidéo mhm. c'est le bureau politique mu nek go nous les militants du parti socialiste pour ñu parti parce que c'est ça la démocratie timide. Mm. la ci ci instance l'occurrence mais c'est des gens xam nga dafa am en l'occurrence parce que as dit socialiste tamit am mm. dire que ci république da ngay attitude citoyenne attitude citoyenne nga respecter en présomption ci nit ñi ngay avocat ak magistrat yi man gendarme magistrat mënuma établir culpabilité nit ne pour une république mais c'est la justice à travers ces démembrements est la gendarmerie ku y a enquête préliminaire te jang ko ñu tagat ko ci donc le 5 mars le parti socialiste continue def activité le 6. bi mu mais c'est les membres du bureau politique du parti socialiste nous, ñoo wax au parti socialiste mais il faudrait que vous portiez plainte pour que nous xam kan moo def mais pourquoi ndax j'en viens. j'en viens pour ñu xam kan moo def a ak kan a auteurs yi ak commanditaire. yi. bi ñu defee loolu yi ak on est resté pendant un mois l'idée même de la mise en place d'une commission dirigée par Abdou Khadir Sissoko a été suscitée et pour autant ces gens-là ils ñu ont ne qu'ils lañ yaakaar ne la mais ñooñu un mois nous bépp mosoo ñu taxaw daan ne réglé nañ ko Khalifa Sall maire de Dakar tay bi tëdd di wax lool mais su ngeen duggé Sénégal légui tapé Khalifa Sall. mordom au parti socialiste ngeen gis mu wax ne li ñu fi am ni c'est inédit musuta am il pouvait y avoir mordom donc li wër dañ ko war tirer au clair. donc lool moy fay waxuma commentaire lool mo am ta kenn mënu ci dara biñu démé demee ko police police def enquête ba japp ay nit ba commencer di convoquer ay nit.

Mm. ay maire yu moo fa amoon ba mu ñu waroon mën a ñàkk seen bakkan dafa lakk wala moon ay gourdin wala lu nekk lañ pompe pompe cassé c'était vraiment gis ngeen image yi attends ma explique ma terminer loolu ma terminer loolu de baal ma tuuti waaw daaneel dix secondes bu ko defee euh, waaw gars yi amuñu la laaj l'exemple de Mamadou Wane mm-hmm. buy responsable du parti politique bu parti socialiste Mamadou Wane gis ngeen ñu xëpp ko suuf tuur ko ndox dóor ko ci kanam nit ñëpp image mi ngi défilé ba loolu loolu dafay parce que amna dom buy jangi amna soxna bu nek ay mbokam amna ay mbokam yu fi nek vous pensez que loolu c'est normal que le parti socialiste baye loolu mu jall vous pensez juste cela mm. un père de famille qui a été humilié dor ko xas ko te ñi ko dóor bokkuñ ci instance amna ñu nan amna lu xew ci benen parti mais bu fekkoon ne ñun membre bureau politique bi nekkoon ci biir salle bi ñun ñoo xex muy dox ñu jéki jéki jël gâteau daal di ko koy ah te moom mais gâteau gâteau justement gâteau gâteau bokkul non gâteau gâteau mu fofu fofu nonu noonu laay ñëwee rek parce que gis nañu itam mm-hmm. fi kenn cautionné wul violence kooku ñëpp nangu na ne réew lañ mo xamné ne mm-hmm. saa lepp luy indi violence lo ci mën mënti gis dañ koy waxtaane dañ koy jéem waxtaane ah, dañ ko pàccoo dañ koy tëjoo wax itam ne mm-hmm. parce que faw ñu reconnaître ben affaire c'est vrai de 2000

ñooñu mënoon a dem demuñu ba ngeen àndandoo ak président Macky Sall jot ci pouvoir bi li ci xew-xew ci bañ dem ci euh, référendum bi am ñu ci ànd am ñu ci àndul foofu noonu rek laay taxaw mhm. foofu noonu mhm. est-ce que jàpp leen woon gannaaw bi violence yi amee ba pare que mhm. mbir mi mënoon ngeen koo jaarale parce que fi mu ne nii doomi parti socialiste tey jii le justice teg loxo wa parti socialiste ñoo leen jël tej leen dafa mel ni daal quoi kër gi ñoo jël seeni doom tej leen loolu nag jek na ci parti bi est-ce que mun naa mun na justement c'est pour vous dire que xam nga dama ne la parti socialiste bobu dafa am li nan bien privé mm. mi ngi mel ne yow fi tey jii fii ñu toog rek studio bi mu am ay micro yoo xam ne maison bi moo ko moom est-ce que yow sur la base que nga bëgg def ben nga def ben reportage ñu ne ko duñ ko jàllale mm. war naa tax nga toj ko xam nga la justice aussi il faudrait que ñu jàpp ne justice dafa am ben ben caractère éducatif éducative et dissuative ça veut dire que ne nit dina mbéj doomam te bañu ko mm-hmm. waaye nag comme ci dans on est dans une structure normée il faudrait que sénégalais juste ak nit ñi parce que ñu fekk nit kilifa mu yorut arme yorut dara tok di waxtaan nga nous tok ñu ne dem ci yoon nit ñi dem ci yoon ba nit ñi di wax. il faudrait que ñun li laaj. amul kenn ku bon il faudrait aussi mm. qu'on sache que le droit des autres s'arrête là où commence ceux des autres, comme je ne sais pas comment on le Donc pour vous dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celui des autres, celle des autres. Ah, Donc pour vous dire que, pour problème, il faudrait que pour mon l'air, nous wax deug gi wax ne li mo fi am nan ko nan ko ñaawlu nak mais buñ démé timit nak ba xam ko comme li khalifa sall doon wax nañ nañ dem ba kan la d'accord buñ démé ba xam kan la hmm. Peut-être on aura d'autres mécanismes qui nous permettre de mais on a besoin de savoir pour l'histoire. Très bien, Alors justement, nous avons depuis que la réaction est Alors, tu sais, nous, violation des textes. Alors, nous euh, avons que parti bi si en justice c'est un peu violé mm-hmm. alors une bonne position est am euh, ci ci loolu est-ce que abus de pouvoir là par rapport à cette euh, position non jamais Nous avons a abus de pouvoir parce que comme li le parti socialiste je vais vous dire une chose. il y a une plainte posé plainte. mais on est ñun ay ay légaliste un républicain et je suis d'accord à ce qu'il aurait dû commencer par là parce que xam nga justice yow même boo ma fekkoon sama kër may sàcc sax sa kër may sàcc sax waraw ma dóor a plus forte raison ma nek dans un cadre privé parti socialiste wo ay nitam parce que encore une fois ci wax jojo su parti socialiste bu fekkee dafa woote ay responsable ñu tok di waxtaan ay nit ñew dóor leen agresser leen mais su jëlul fulla ak fayda def loolu parti socialiste yaakar nañ amaat na fit di xoolaat ay militants ak ay responsable nan leen ñëwaat leen maison du parti donc pour vous dire que il faudrait que nit ñi waxante dëgg ñu waxante dëgg ba paré dëgg nak moy tax jamm di am waaye bu féké dafa am ciow lu am ni rek nit ñi ku nekk di commentaire mo am des stratégies de diabolisation des uns et des autres xam nga kuy défar ak kuy yàq bokul ce que nous disons là nekkul luñ créer ta sénégalais yi may sét yi may gis xamna li ma wax mom moy am li nekk ci gis bi hmm. leneen li nga wax ci texte parti bi par rapport à ça je vais vous dire une chose gis nga ce, que, ce qui a été retenu par le parti, c'est la volonté populaire des militants du parti socialiste qui l'ont dit de manière claire et nette parti socialiste dañ ko dañ ko bu ay la 138 coordination il y a 45 départements qui sont réunis. Il y a ci coordination qui respecte le parti il y a dem ak Macky Sall coalition wala waruñu dem ak Macky Sall coalition. Mm-hmm. bu dem ak Macky Sall coalition. Mm-hmm. ban coalition lañ war a ànd question am ay voté. am xam-xam ci parti bi tamit voté bëgg continuer ak coalition Macky ay procès verbaux lañ ñi ko dernièrement secrétaire général dafa convoqué tous les secrétaires généraux des coordinations. ñoom ñu ñëwaat ko dernièrement bureau politique confirmé ko daat ne li génn ci résultat yi ñoom ñoo ko wax xam nga ñaari mbir li nit ñi xam ban wax ma mooy lan am na ñenn ñoo xam ne comme li ngay wax biñ ñëwee ci parti bi yàggul parti bi joxoon leen ci ay cëru député ku ci mel ni ku mel ne exemple Barthélémy Diaz ku mel ne Aminata Dia bi mu ñëwee yàggul yéen ñaa kan moo maa ko accueillir bi muy ñëw pour vous dire que ne bari na ñu mel ne man ñu yàgg ci parti bi mosuñu cee am ndombal tànk te kenn déggu leen. d'accord moom nag bi mu demee ba mandaam di jeex mu xam ne mënul yéegaat moo tax nga commencé muy def agitation ak ay ay ay chantage. Mm. pour que parti bi daw. mais dafa yaakaar ne wax lu la neex. ak ñeme bokkul. Hmm. parce que le parti socialiste yoon bi mu jëm dara munu ko cee dindi. léegi balaa balaa leena di la poser question man dama xam yow yaa accueillir ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire euh, Barthélémy Diaz euh, ba tey euh, ci yenn ndombal tànk yi moom mu mun ci bénéficier yow pourquoi pas yow. parce que c'est la démocratie Barthélémy bi muy yor loolu. Hmm. dafa ñëw ci congrès. parti socialiste tamit da ngay comme yeneen parti nga xam ne ni da ngay toog ba mu rek mais a tabb bàyyi la parce que boobu bi may bi muy tagg man maa ngi ci mouvement des élèves et étudiants socialistes boobu étudiant la xam nga am na parti bi ñoo xam ne dañuy teel a dugg nekk ndaw di avancer jëm ko hmm. am ñoo toog ba 40 ans wala 45 ans ñu ñëw hmm. moom bi muy ñëw boobu maa ngi ci mouvement des élèves et étudiants socialistes laa doon jiite hmm. mu ñëw c'est un parti démocratique loolu day wone né parti bi ku fi ñew barki dembe ak ku fi ñew tay bu la nit ñi défé confiance yaay jiitu ñu jox ko jeunesse socialiste té bu ñuy joxe député mhm. ci parti socialiste amul yaama neex mhm. dafa am ci texte parti bi ñu né mag ñi lii la am jigéen ñi li lañu am ndaw li lii lañu am donc faluñ ko won pour yaama neex mais poste jeunesse socialiste bu mu jité won mhm. ci lañ ko joxé won député sax – Oui, xam nga da nga parti socialiste le parti démocratique la euh, de manière très innocente d'aller poser cette question euh, parce que gis nañ récemment aussi Barthélémy Diaz bëggoon ñëw ci une réunion qui tëj buntu bi mhm. alors que c'est un membre du parti socialiste mhm. euh, ñu gis ne ni que aussi voilà voilà voilà mhm. exactement Nous avons vu que PS aussi day dem ci législative sous la bannière Beno Bokk Nous avons vu ki xam ne Ousmane Tanordien, président H2CT. Euh, loolu aussi ñun ñëpp ñi ngi ñi ngi journalistes yi ñoom ñooy envenimer la situation. parce que je pense que li ñuy focaliser wu moy ci bi amone le 5 mars. Mhm. mais au-delà de ça lan mo indi bi est-ce que y a ngeen ngeen qui réfléchir ci loolu parce que alternance générationnelle ñi wax. Mhm. si vous-même vous dites que vous êtes un parti démocratique et malgré tout vous fermez la porte aux socialistes aussi. démocratie dafa que a manquer, il me semble. Justement, c'est pour vous dire que avons une alternance générationnelle ce que nous avons c'est la solidarité générationnelle parce que dans le parti socialiste am pionniers pionnier am arabisant am maître élève étudiants socialistes, am étudiants socialistes am les jeunes, am les jeunes féminines am les femmes am les cadres am les universitaires am les les les sages mhm. du parti ça veut dire que nous, toutes ces générations nous sommes en symbiose dans le parti socialiste Nous, la théorisé. parce que li Tanor dafa man dernière élection présidentielle américaine je ma invité comme jeune leader africain pour ma mais ñaari candidat yi fa gënoon a en vie muy Donald Trump. ak Hillary Clinton. mais ñoom ñaar ñepp ñoo mak Tanor non. waaw lan motax ñu tëjee donc pour vous dire que non pour vous dire que rek mais bu leen bu leen focaliser wu. Ah. parce que ñun aujourd'hui buñu amé amee benn président de la république bo xamantene judduna après indépendance. xana nak buñu ñu amaat beneen président day gëna a waye du delu ginaaw wa kon j'aurais bien aimé kon xanaa bu fekkee logique bobu rek la ñuy suivre kon ki wara remplacer Macky Sall. <laughs> warta mag ma ñu waaw réew la wax quoi waxuma waxuma waxuma. non non parce que xam naa Donald Trump xamna né Donald ñaar mon moo qui ki nga xamante ne moom mooy non je veux dire ne bu fekkee ne âge boobu rek lañ jëm. d'accord kon ki war a après Macky Sall <laughs> ah ñu am chance mu la jeunesse bien ayca ah. non je par rapport ak Barthélémy xam communicateur là non non non ah, non je vous donne je vous donne des faits je vous dis je parle de faits. Mm. nous-mêmes nous savons. parce que nous-mêmes nous savons parce que c'est ça ah. l'optique tey bi am nous-mêmes nous savons mais pour vous dire que pour vous dire que euh, euh, Barthélémy Diaz y a des maison du parti socialiste qui fa une ay réunion wax ko dara parce que parti socialiste du une individualité c'est des structures bu la neexoon tey rek yow jël le parti jël une ligne nga génn ko en marge de la ligne du parti Il reflète une volonté populaire nga bëgg a un jël taxaw symboliquement pour jeter l'anathème sur le parti sur les responsables des mais partis. Mais peut-être qu'il n'était pas venu pour ça. Non, non, le la suite, la suite non, mais, la suite quand même, la suite, tout le monde sait la suite. Il s'est vertement attaqué au parti. Oui, mais... Et puis, moi je pense que, comme je vous dis, Gaï a politicien, politicien demi. Barthélemy Taïdi, Bimignou. ci parti bi ñun ñëpp pas nañ su demee tey ba mel ni il le doit au parti su bëggee yaakaar ne mun na lem dank parti bi dugal ko il se trompe il se trompe lourdement quand même ñëpp di laaj fi mu ne nii li ñëpp di laaj mm-hmm. mooy parti socialiste mm-hmm. boo xamante ne moom moo yor réew mi mm-hmm.

Senghor, c'est notre père. C'est lui qui nous inspire qui dynamique l'orientation l'orientation politique du mais comme on dit la vie elle est évolutive ça ne peut pas dire que ne Tanor euh, Senghor mais Khalifa Sall ce Senghor n'a jamais dit qu'il mhm. ne parce que Senghor si vous vous rappelez très bien la première élection de l'a bokk et puis l'évolution politique du monde aujourd'hui a montré qu'on est à l'ère des grands ensembles amul un parti bu meuna très deuxièmement hmm. mais nous, 2007, élection 2007 législative 2012 est ñok Bokk est-ce que le parti socialiste lim ci am moo tax mu ne parti bi nii ngeen di jaar. demuñ tey demuñ ëllëg. Hmm. parce que yoon bi ñu war a jaar moom mooy bi militant yi jaar. moom su bëggee dem nag qu'il prenne ses responsabilités parce que vous avez pris l'exemple tout de suite de Gakou hmm. ngeen ne Gakou bi mu demee ba nga xam ne majorité boobu foofu dégagé wu waaye jël jël na yoonam dem. Hmm. mais doo fi bëgg a nekk di victimiser wu. yaakaar ne dañ lay xeex kan moo ko xeex. Khalifa Sall fii la dernière question oui ma euh, Adjara Cissé euh, li mu bëgg laaj defe naa ne moom mooy 2019 euh, ndax mën nañu xaar PS am candidat wala du loolu. bon mën nañ ko si ñambaas. Ah. mais man si sorti wu <laughs> si sorti wu Khalifa Sall euh, dernièrement si médias yi da doon wax que ni mm. euh, que ñoom dañu gis ni euh, que ni bon état bi bon gis nañ ni yéen yéen ci biir Ligue liggéeyandoo ensemble mm-hmm. donc gis nañ ni dafa melni dañ leen di barrer la route parce que nee gis nañ ni même si budget euh li nga xamanteni mom moy dem Dakar dañ koy wàññi mu néew ba nga xamanteni dañuy wax ni ñom daf ñu ben réalisation Dakar mu bokk c'est-à-dire amul ben projet bu ben projet bu émergé voilà mm-hmm. donc accusation yoy wala affirmation yoy mm-hmm. yéen bu ngeen ko déggé Euh, justement, est-ce que, franchement, on s'attend à ce que Ngen gagne ces parties de force ou... Je vais vous dire une chose. Euh, Khalifa Sall Mingi ngi ci politique di victimiser wu kese. parce que je vous donne un exemple l'exemple de la place de l'indépendance Mingi ni, nii. Ah. dafa taxaw ne yor marché bi mingi taxaw mais le premier ministre les a appelés tous ne ko ngi qu'en est-il de ça est-ce que loolu mais ñii est-ce que dafay def seen wàll. ay concertation non gis nga nag dinaa leen wax bi gis def dafa né mu am ay concertation ñu ci waxtan té amna ci njott bu rafet. je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose gis nga nekkuñ ci jàkka nekkuñ ci juma ci terrain politique lañu ñu nekk. Mhm. nit su fekkee dafa yor mbir. moy l'art de gérer la cité. non je veux dire que ni justement. mais non non non justement. mais je te dire que ne comme c'est une compétition électorale. Ah. où chacun essaie de mettre les atouts de son côté bu xeex joté, tamit dañuy xeex parce que Khalifa Sall bu fekkee dëgg neex yàlla ku bu la yàlla mayee nga am parti bu mel le parti socialiste Vous xam ne est la partie visible de l'iceberg. Mm. Mais dans le Parti socialiste, vous avez des professeurs d'université émérites, d'anciens ministres, des gens qui connaissent l'État. Bien sûr. Nous savons erreur yi muy def mm. ay xalé yu ndaw ñoko japp diko pousse diko gëmlo mm ba dem te fi ko jëmee baaxul ci moom. c'est votre avis donc pour vous dire que ne la. d'accord bu munoo ci parti socialiste. di réclamer wu digne héritier de Senghor et de Abdou Diouf. di yem yenn très bien mais ci bi ñambaas bi parce que comme wax naa ko. 2019 mu na ko 2019. mën nañu xaar benn. Euh, en politique. non non oui day. non mënu maa wax oui non parce que. ah mënu ma ko wax. non day non mënoo def parce que xam nga li tax ah, du ma def nii. waaw xam nga nii lay def. 2019 parti socialiste day am candidat wala du am candidat. loolu waa parti socialiste militant yi ci règlement parti socialiste. Mm. suñu accès passé dinañ defaat comme ni ñu def ci législative yi. <laughs> c'est que nit ñi. législative yi ñëpp xam nañ ne da ngeen di and ak Tanor. da ngeen di and ak euh, Macky Sall parce que dañoo yóbbu question bi ci coordination assemblée coordination yi ci Nous votons de manière libre et démocratique. majorité bi neen lii. merci bu ñëwee présidentielle non merci beaucoup euh, monsieur Bounama Sall moom responsable des jeunes socialistes chargé de com euh, du ministre Serigne Mbaye Thiam ñu un ànd ak moom ci euh, waxtaan bi nga c'est-à-dire top moom moo ko ubbi crise au PS Tanor Raam pour Macky un point d'interrogation lañ ci teg dégg nañu li nga monsieur Sall muy Bounama nous na ci ci noonu ñu Abdouja, Abdou Abdou Dia et sa bande ñuy def euh, world music mais avant Mam Abdou Dia et sa bande Mam Abdou Dia amna fumu fumu tamalé fu mu tàmbalee ah ne liggéey na fa pendant dix-neuf ans euh, dix-neuf ans mu ko ko Waliyaan aujourd'hui qu'est-ce qui a créé lolu nga xamantene mom moy euh, nga génn pour def sa bande bop bon

moom arrêté ñeneen ñëw ñuy joué du jeu toujours j'ai resté et finalement dem na ba moment aussi j'ai vu que attends comme j'étais d'expérience tey war naa mën a demal suma hmm. mais Waliyane la moo ko composé groupe la boo xamante ne ñëpp ci bokk. wala non non non c'était un groupe d'amis c'était un groupe d'amis moom moo composé parce qu'il y avait Cherche Sadibou Diagne bon y' a Aliou Dia le manager il y' a un Ndiaga technicien tu as vu un a staff Finalement, fi nekkoon bon finalement xam y li ma la musique boo def aussi bon demee ba benn moment war nga mën a taxaw xool fi nga jëm. bon loolu Je waral ma xëy dem tey def suma carrière. très bien lan ngeen a réalisé yow lan nga a durant ces 19 ans. bon on a gagné en 2002 concours Alliance française parrainé par Ismaël Lolo. Mm-hmm. ouais on a joué pas mal au centre culturel français Alliance française centre culturel français Saint-Louis. Bon, on a, on tout fait avec le Malien. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça la vie aussi. Quoi. Très bien. Donc, Mam Abdouja et sa bande, Bande B existe depuis combien de temps Depuis un an. Depuis un an Oui. Mhm. Il y a Percussion Asgien. guitare Calabas Sanya. Moi, je fais. Je suis le leader du groupe. Mhm. Et Fort Rebez. de guitare est à où qui n'est Fort Rebez. Hein? Fort Rebez. Fort Rebez. Très bien. Donc depuis un an, il y a rien d'exister. mais j'ai créé un album en 2015. Euh, album bi 2015 2016 la parce que amna na partie boo xamante c'est international am benen partie bo xamante c'est national euh, mu nek un album composé de six titres muy jëf euh, mën nga ñu mën nañ dellu si rek ci album bobu non ngir xam arrangement yi et puis bon, album bi album bi même defuma ko groupe bi hmm. parce que album bi c'est un jeune français qui s'appelle François Morse. mo fi ñoon ñu don liggéey ak Walian bon finalement vraiment il a vu li ma def mu gis ko mu intéressé ko aussi mu en 2015 pour ñu def production mm. c'est ça. mu def production bi mu def production bi. Mm. bon je l'ai joué avec Ndofène Diouf mo def guitare xale bi. Mm. man ma def yene guitare voix yi. d'accord Fouad mo def kër yi ak viengom Ngom ñoom def kër yi quoi. d'accord six titres. six titres yene lan lañ ci mëna a fekk yan titres yaa jëf yaa Si Malick. Radiyallahu Dabax yaa Astou ça part de la jigéenu mbedd. astu lu waral astu pourquoi astu le nom astu. non c'est-à-dire lu tax waxoo Ajara wala lu tax astu. non après non non non il faut pas dire ça. <laughs> non bu la rek a aussi bi diggante. bu <laughs> ah, sell bi nga naan diggante. astu sellul non c'est pas. Ajara moo a <laughs> deuxième femme euh, le prophète Ibrahim. Ah, ah. nga que xam nga mais ñu non mais rek. Ah. mais non du bon et puis y' a Il y' a Samba. Euh, Samba c'est un morceau aussi que j'aime beaucoup dans la ville pour pas décourager. d'accord y' a Casamance. Mhm. très bien mais sonorité sonorité c'est le world music il faut écouter bon

Euh, ci musique bi ci bopam mais est-ce que ragaloo ni que fi Sénégal parce que amoon nañ fi ben artiste bu ne moom rëmtam bitam la gis na que sénégalais mom lañu la ñu mi ngi noonu est-ce que ragaloo ni que sénégalais ñom duñu am problème pour accueillir euh, genre <laughs> l'idée <laughs> genre musique mom moo ko def tay non non soxna <laughs> man konté mo sama musique muy sénégalais bi espagnol man xuma la damay def musique mhm. man musique laay def bu ko ben nit di déglu sax di xam la ma cay wax da xam la ne ci musique j'accepte d'accord foofu rek laa bëggoon mais lan moo indi lan moo indi engagement boobu noonu. non engagement bi gëm-gëm la suma ma yëg-yëg la. Omar Pène wax na ko fii je me rappelle lu yàgg nee na bi mu doon def demoon na ba sant bu ko benn nit doon déglu moom gëm leen musique am fi mu doon dem. Mhm. nit gëm-gëm. d'accord ci ci foofu nga toll. Hmm, mais est que loolu est-ce que tamit dina lu dundal est-ce que tamit di nga ci gis. sa bopp bi nga mën a faj yenn soxla yi. faj yenn soxla yi. xam hmm. nga dama la boo seetloo musique bi. ñi ci gën a tey au Sénégal wax naa ko ci benn journal l'évidence ñu gën a taxaw ci musique bi tey am na ci ñoo xam ne dunduñu ci liñ ci liñ ci war a dund Souleymane Faye kan moo ko dàq way mhm. Omar Pène kan moo ko dàq way ana Ndiaga Mbaye kan moo leen dàq way gis nga ñu tabax immeuble affaire bi du foofu mhm. da koy dund d'accord mhm. c'est l'art très bien c'est important Mme Abdou Dia euh, mom la ñu àndal mu and ak bandam mais ci bir dégg ngeen li nga xamante ne wax na mu ko ci walu art nek ne euh, amana que ñu ci ëpp du leen dundal euh, ci xam nañu Ablaye il est parti 1981 2017 aujourd'hui ñu koy ñaanal encore une fois que la terre lui soit légère paix à son âme di jaale la communauté africaine hein, mondiale fu waaye munti nek rek ñu ngi leen di delo parce que xam nañ ne tamit Ablaye il y a li nga qui représenter le Sénégal dignement euh, mais euh, si euh, portrait bi hein, lan ci artiste vraiment en restant discret parce que surtout pour nouvelle génération Dante il était assez jeune parce que est parti à l'âge de 35 ans mais nous gis de plus en plus artiste nouvelle génération bi dañuy euh, génne ben single ak foog ne ñom ñoo moom réew mi di jaay ay star mm. Ablaye mbay mën na né kenn xamuluko dara lool aussi kon fa nek lo xam ne dafa am solo mën nga nek artiste nga am talent discret il est parti sur la pointe des pieds donc peut-être war nañu ñun encore artistes yi nga une nouvelle génération je ne citerai pas non mhm. jël exemple ci genre bobo très bien c'est important donc nous allons découvrir hein. ensemble euh, oui pardon te jàngaat ci moom te si très bien laay day def affaire yoo xam kaw boo dem boo ko déglu y a des morceaux yoo xam boo koy déglu da ngay xam bokkul sax yenn musique yi d'accord ndax ci variation yi ci sonorité yi d'accord très bien Bounama. oui man bëggoon naa def benn commentaire euh, si ablay, hmm. ndax euh, amoon na handicap. te suñu société bi ñu ngi ci gis ay phénomènes yoo xam ne rafetul da ngay gis ci mbedd mi euh, mag mu la ëpp doole foofu valide di wër ci mbedd mi di tàllal loxo te Ablaye malgré handicap bi mu amoon gëm très bien D'accord. je pense que vos exemple bu am. voilà très bien merci beaucoup euh, monsieur Bounama Sall en cela nous allons euh, visualiser ensemble li nga xamantene portrait bi ñu leen Sarbram, borom agriculture defal euh, ci Ablaye Mbaye parti ci li nga à l'âge de 35 ans de 1981 à nos jours aujourd'hui 2017 ñu avons la réalisation c'est un côté d'El sur ce plateau. ëllëg lu may wax lu may du ci atum 1981 ca diwaanu Médina Abdoulaye mbay nekkoon na ab waykat bu ñu ràññi lool ndax batam bu neex mu door way ci bi mu amee fukki at ak ñaar Abdoulaye Mbaye ràññee woon nañu ko lu toll ci juróom-ñaari at ci ànd bi mu daan ànd ak Youssou Ndour ci ay tournée kii di Abdoulaye Mbaye nag génnoon na ay album yu bëri ak ay woy yu neexoon lool askanu Senegal. lu ci mel ni yaay màgg naa yaay màgg naa julli nga timis ñaan yàlla ma dund yaay màgg naa ci biti réew kii di Abdoulaye Mbaye daan na liggéey ak ay artistes yu ci mel ni Dizzy Lapes ak Kerry James silmaxa gi mu nekkoon nag musta yàq dara ci carrière mu nekkoon ku tey lool noppi bëri jàmm Abdoulaye mbay wan na ginnaaw àdduna juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2017 Abdoulaye Mbaye mu ngi ñàkki bakkanam ginnaaw ci ba mu amee ab malaise ca ba mu doon répété ci benn studio mu amoon lu toll ci fanweeri at ak juróom artiste bile mu ngi doon waajal génne ab album

indi boppam ba sikap moy manam ba rue juróom parce que période bobu Moustapha Faye ni koy woowee Moustapha muy joué tey Youssou Ndour mom moko don arranger arrangé ko joué don ko tek ci gam naka lay def ba meuna woy parce que amoon talent bi voix bi était bien présente euh, ci lañu créer créé album Ni la Demain. Ah, je me rappelle Lemzo Jamono pratiquement ñoom ñoo joué album bobu après soppe yi ñëw et tout ah, donc souvenir bi ma ci am mooy on a on a on a passé ensemble ay affaire yu bëri ah, ci football ci koñ bi ci dawal vélo xam nga Ablaye lu ñu def rek mu ne da koy def moom tamit xam nga voilà donc mooy li euh, maam Abdou Dia doon wax léegi ak euh, monsieur Sall euh, ci ne c'est vrai handicapé na mais teewul woon boppam Adjara Cissé. Mhm. amal ah, maa ngi fàttaliku souvenir bu monsieur am c'était il y a pas longtemps fële la woon place de l'obélisque ci benn randonnée pédestre boo xamante ni c'est acteur acteur éducation yi ñoom ñoo ko doon def pour xale yi au moins ñu am un droit dem école am accès à l'éducation de qualité donc mu gisoon ko ci ci randonnée bi c'était la première fois am occasion jàkkaarloo ak mom mu malgré que li nga un wax amone handicap et tout mais da nga doon euh, que ni mu ngi investir dem presque def na tuuru Médina bi yep ak xalé yi sans que sax nga xamni ne euh, dafa amone handicap waxtaan ak nit ñi et tout il militait vraiment pour que xalé yi dem école et tout en même temps on profité woon ci occasion donc jël ci réagir par rapport à li nga xamante ne moom Gambie parce que ñu ngi fàttaliku jour bobu sax euh, le Yaya Jammeh daal di wax ni da fay toga ci ngor bi mako ko laacc rek ci lolu mu ne mu Afrique muy muy ñaawlu image bi nga xamanteni mom moom état Afri euh, euh, homme d'état africain di jox suñu suñu réew yi mu ne tubaab bi tout le temps dañuy am raison parce que ñun ñoo mayul fulla suñu bop donc mu ne kon ay kàddu yo xamanteni ne ça m'avait vraiment marqué et puis voilà franchement ñu koy jaaree seen waa très bien très tôt parti à l'âge de 35 ans Ablaye Mbaye ñu koy ñaanal bu baax fa mu nekk gënal ko fofu mu juggé mom ak ñëpp ñi nga xamantene euh, ñoo ngi fa donc di def euh, condoléances képp koo xamantene ci bés bi am na ci naqar euh, ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax sax bi yàgg seen loxo lool te suñu borom def li gën a gën a gën mooy ñu dem ci àjjana yi gën a kawe ci noonu c'est-à-dire sant nañu ki nga xamantene ne mooy monsieur Bounama Sall mi nga xamantene moom mooy responsable des jeunes socialistes chargé de com du ministre Serigne Mbaye Thiam ban message ngay joxe pour le mot de la fin bon d'abord vous remercier ci invitation bi pour vous dire que l'émission <coughs> émission qui est très suivie surtout parce que il y a donc koy professionnalisme et puis nous ki a ñëwee di ngeen ko bàyyi mu dérouler même du nous ko parfois mm. mais c'est ça le plus important <laughs> donc euh, encore une fois d'encourager encourager a ma le euh, plateau bi Abdouja, Akman. Mam ok justement di et puis di a le yagal jàmm ci réew mi. suñu équipe nationale bi jëm Coupe d'Afrique. ci tamit ñaan yalla may ko ndam. amiin euh, mu ñëw fekk ñu ci jàmm ak salam donc en tout cas merci pour tout. D'accord, très bien merci beaucoup euh, monsieur Bouna Massal mom mi nga euh, chargé de com du ministre Serigne Mbay Thiam nek en même temps responsable des jeunes socialistes ñu doon waxtane li nga xamantene moy actualité crise au PS panorame t pour le président Macky Sall ñu def ci un grand point d'interrogation. Nous ci nonu ñu and ak euh, une page de pub beaucoup on se retrouve tout à l'heure euh, en compagnie de Fatima euh, dans sa belle rubrique bébé et maman c'est tout de suite actions Street Marketing, Tournée Roadshow Urbain, Street Marketing, Marketing événementiel, Team Building, Escaf Events conçoit et met en œuvre des solutions innovantes de communication terrain basées sur l'écomobilité et la proximité en vous proposant ces gyropodes de dernière génération. Escaf Events imagine des opérations qui vous permettent d'aller à la rencontre de vos prospects de façon originale et ciblée en suscitant leur curiosité tout en vous permettant d'atteindre vos objectifs. Pour tout renseignement, appelez le 77 920 36 89 ou le 77 576 12 07 ou le 77 016 29 05. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Le prétexte est bien choisi. Une rencontre initiée à Dakar avec l'autorité de régulation des télécommunications des postes, le ministère des tutelles et plusieurs partenaires. En marge des échanges sur la gestion du spectre et le financement de la radiodiffusion numérique, une délégation de l'Union internationale des télécommunications choisit de visiter les installations de la télévision numérique terrestre. La transition au Sénégal de l'analogie au numérique et l'œuvre du groupe Excaf Telecom. Uh, je suis impressionné par les équipements. Je suis également impressionné par la vision de ce pays. À voir ce qui est devant nous, je pense que le Sénégal est leader, leader parmi tous les pays africains. Je pense que c'est un bon travail un travail de concert avec le gouvernement. Ce sont des équipements modernes et actuels. L'approche du groupe EXCAF est un travail excellent. Ils viennent d'ailleurs de me dire qu'ils ont 14 centres comme celui-ci. Je pense à ce titre que ce n'est pas un travail simple, mais il était nécessaire de le faire. C'est tout simplement formidable ce que euh, ESCAP a fait. Euh, c'est un modèle de type BOT, euh, Build Operate and Transfer. c'est un modèle qui pourra éventuellement inspirer d'autres pays africains. Dans la zone UEMOA, le Sénégal est le pays le, le plus avancé. Je dirais même que c'est le premier pays. Les autres pays, j'espère qu'ils s'inspireront de l'exemple du Sénégal que très rapidement cette migration vers la, TNT puisse se faire. L'expertise du groupe Excav Télécom repose sur une technologie de pointe. Elle a permis déjà 92% des taux de couverture du territoire national. Ces modèles de réussite aiguisent des appétits en Afrique et la société burkinabé de télédivision n'est pas en reste. On est édifié de voir ce qui a été fait au Sénégal par rapport à la transition numérique on est là pour une rencontre qui parle justement de ce sujet. Et pour moi, c'est vraiment édifiant de venir voir ces équipements. Et ça nous inspire aussi à travailler pour que ça soit une réalité aussi dans notre pays. Le Sénégal émerge dans l'ère du numérique et le groupe EXCAF avec. Il s'agit du couronnement de plus de 40 années d'expérience, de gros investissements et une ressource humaine de qualité. souhaiter joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent. Il est depuis euh, là-bas, Saint-Louis, hein, donc Kokomoy Ousmane Diallo. Euh, il fête une bougie de plus à partir de ce jour, 10 janvier 2017. Euh, Mais elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Euh, Fatima, borom rubrique bu am am am solo bi nga xamantene adina àddina ngeul kep ñep dañ koy xaar diko nam lool Fatima nuy na la. no def. bàyyi nga am ça se passe bien Aujourd'hui, c'est une autre application. Oui, pour les enfants. Pour les enfants. <laughs> Très bien, on y reviendra tout à l'heure, Inch'Allah. En attendant, je agriculture ñu ànd Nous Lena ak ganam kooku mooy le grand graffeur muy ndaanaan moom tamit muy tudd maan nañu ànd ak moom. très bien donc Mahaz, Mahaz, Arkam euh, nyas Diman man, nga ñu voilà donc euh, mu nekk ben artiste euh, plasticien nek portraitiste so gisoon portrait yi muy def yow bu la defale sa portrait sa nga foog ne photo la. man mi. Machallah. allah. na ma defal portrait lay def ah maa ngi xaar sama bopp. <laughs> voilà kon nak man yow nga nek ben autodidacte depuis 2006 manam liggéey bi bang koy tambali nek lo xamne dang ko jang, donc depuis 2006 nga ko commencé. 2006. Euh, depuis 2006, euh, j'ai commencé à euh, dessiner. Bon, C'était juste le genre des dessins ou comme bon, les artistes beaucoup ont commencé, mais sans pour autant savoir que genre artistes, dessiner des Mickey, des Tortue Ninja, ay Donald Trigant, tu vois. voilà ay Mickey Mouse. mais doo xam ni ay Picsou voilà ay Pixou. ay Donald. ay ay këriñ si voilà mais genre da ngay jàppee ni que affaire xale la et tout bon. Euh, Njool moo la gënoon ay fouf ba mu nekkee xale. waaw Njool. non la mu ci doon dessiné moom yow mënoo ko man loolu leer na. en tout cas au fur et à mesure ma doon évoluer di ko ne di def si fooyoo noonu à un moment j'ai vu que bon man nu may dessiné tortue ninja ak xale yeneen boo yi may àndal bokkul.

boo demee école des arts des la jàngal dinañ la tamit. ci euh, lay formel daal. waaw ci lay formel. ci lay formel quoi ñu gën la pousse nga xam bon lan ngay def lan la lii peinture la voilà quoi. Euh, nga mën a euh, séparer art plastique ak bon yeneen façon art yi. Mhm. bon si loolu noonu tamit bon lenn tamit li ñu la ko mën jàngal mooy ils vont pas pouvoir te faire devenir un artiste. tu vois genre da ngay ñëwaaleeg moom ba pare nag quoi da ngay nekk artiste ba pare. tout d'abord après kon maanaam Nicolas moom bu demoon. non du xam dara ça sert à rien ah. ça <laughs> euh, après tamit ba ma génnee des arts euh, en 2014 si la rencontré RBS. mu nekk mhm. benn crew boo xam te ne ni ñoom dañuy def euh, graffiti. Mhm. ñuy def justement c'est l'ol ça parce que gis gis nañu ni que souvent ñun Sénégal dañuy confondre nga xamné mom moy graffiti ak tag. Mhm. parce que di nga gis ci mbedd bi ñu bind ben voilà euh, libérer tel wala andak tel genre yoyu mhm. euh, donc euh, ñu ci bëri dañuy japp ni que en fait yéen li ngeen di def c'est du vandalisme. mais est-ce que graffiti ak tag benn la. non graffiti ak tag du ben. merci encore si de me poser question parce que ñu bëri dañu japp ni que tag moy graff. Euh, lan moo leen différencier. en fait graffiti euh, mon genre œuvre d'art le bu pareil genre mur avec les couleurs et tout enfin des fonds, fond. Mhm. tu vois de éléments, des tamit ay personnages et tout. Euh, loolu moi, graffiti ensemble euh, de ben œuvre d'art bu bu pareil le pareil mais bon xam c'est mural bon les tamit ñoo koy commencé def tableau par rapport à tag tag signature là genre boo defee œuvre bi ba pare après léeg-léeg si voilà di nga def signature boo xam genre. ba comme boy signé yo def man voilà su ma signé def maan wala def man ñas ngay def maan damay def maan maan ngeen laay def. <laughs> mais est-ce que yow si par exemple gis naa que yaa ngi yëngu euh, lu bari ci li nga xamné mom moy mooy sukkali Parcelles parce que foofu nga juddoo. Mm-hmm. Euh, gën ñaar aussi euh, population bi surtout les jeunes. Mm-hmm. est-ce que aussi di nga bokk na ci li ngay def mm-hmm. conscientiser leen que ñuy bañ aussi vandaliser li nga xamné mom moy les rues parce que wax nga ko donc graffiti c'est comme de l'art moi tax ñu jël titre Bob de l'art jusque dans nos rues donc est-ce que vous aussi ci seen il y a une leen di conscientiser tamit euh, loolu moom moo nekk première biographie euh, ici au Sénégal parce que boo euh, graphes naissance am genre si yeneen pays genre euh, États-Unis et tout foofu graphe bon, muy Euh, genre si mouvement hip hop quoi à 100 mhm. affaire de rap ak tamit affaire de yenn gang et tout genre dañ ko doon def pour les léeg bàyyi seen blase euh, si benn secteur wala ni ñoom fii ñoo ko moom fii secteur là affaire de gang et tout. par rapport ak ici euh, naissance du graffiti au Sénégal moo ngi juddoo si mouvement Set mhm. cest à veut dire que toujours des ñëwaat si loolu noonu euh, du graffiti au Sénégal si lancer ay message la yoo xam des ne day bokk si loo des te ne que ce soit côté social culturel et tout. très bien. ça dit top. liggéey bi ni mel ngeen ci gagné est-ce que c'est rentable. Euh, bon fii Sénégal la nag mais bon comme sànq ni ko sama euh, grand artiste waxee euh, toujours d'abord lu ñu gën a jiital ak lu ñu pousse lu ñu motiver mooy passion bi. Mhm. tu vois te boo koy def déjà dafa nekk liggéey boo da ngay liggéey mais tamit da lay neex. li ngay def liggéey mu leen neex bon bëriwul ñoo xam te ne dañu temps liggéey boo xam te ne moo leen neex ñun dèjà dañ buñ koy def. dañuy liggéey bi may def neex na ma lool. Ah, alhamdulilah quoi waaw ah, allah. waaw aussi dina am ay parfois ay tournée artistique yoo xamante ne parfois yeneen yeneen artistes yi nekk ci yeneen domaine dañ koy def. est que yéen mm. seen domaine am na yu ngeen di organiser ay tournée ak yooyu. wala bu dee am na ci day am ay tournée day am ay ay euh, genre.

dañu dem si dañu jéem aussi tamit essayer de décentraliser graffiti bi. Mhm. bañ a toujours tamit di yem fii nii euh, Dakar. mais tamit di dem ay Thiès dem ay Louga dem Tamba Tamba euh, bii ñu mujjee def ñoo ngi koy def euh, Kaolack. si mhm. lycée Valdiodio bi jëloon comme thème panafricanisme.

parce que nous avons des gens qui sont Suisses, des Belges, nous avons des gens qui sont venus aussi dans sous régions. Très bien. Bon, c'est central, c'est D'accord. Adjara Alors, je vais euh, utiliser ce matériel B.

voilà voilà d'accord mais body painting bon téléspectateurs aussi ñoom tamit ñu mën comprendre exactement body painting comme son nom l'indique je peinture euh, sur le corps sur le corps mhm. voilà euh, donc koy def am na ay artistes yu bëri crew bi dañuy def body painting euh, man de tamit aussi ay maquillage et tout bon parce que bon ça sort pas dans le domaine de de l'art mhm. tu vois c'est c'est toujours la peinture c'est toujours des formes c'est toujours euh, ay dégradé et tout quoi. ñu <laughs> gis né aussi dans le cadre body painting que ni euh, adaptation peau daf ci am solo trop. parce que nit ku weex ak nit ku ñuul du benn donc justement est-ce qu'il y a une formation au moins pour que ngeen ko defal mu ci sentir parce que nous, ku de du même couleur et du même agencement qui euh, ngay def euh, je sais pas li ngeen koy woy palette yi mhm. du même chose donc euh, est-ce que vous pouvez ñu expliquer un peu les ngeen di defee différence ak mélange de couleur ngeen di euh, bon c'est facile parce que bon si c'est lañ nekk si si couleur yi lañ nekk bon déjà juste pour dara mais ñun dañuy dox dañuy dox mais nous gis ay couleurs yoo xam te

yow tamit yow yaa xam. genre mhm. kii ban thème mooy adéquat. d'accord pour visage am et tout. très bien léegi avant may jox Fatima euh, ci est-ce que démonstration bi nga xamante ne bëgg nañu nga defal ñu ko ci plateau bi parce que lii nii moo nar a nekk sa repère mooy bébé et maman euh, mi ngay gis nii ah ñu ne bébé ah, waxu ñu da ngay yóbbu tableau bi seen kër de ñu da nga koy yóbbu ci princesse de. lii <laughs> ah, kii amul maa ko moom heureusement heureusement bi euh, puxus ba ñu ma jox daal laa koy la laay stocké tableau yi tableau bu fi bu ñu fi kii rek foofu laa koy stocké en 20 minutes laa bëgg. dina mën a nekk nga ah, mu ñu defal démo ah, c'est voilà légui dama bëggone Fatima amna na la bëgg laaj avant ñuy bayyi nga def démo ñu and ak mom ci voilà xam nga li ni c'est extraordinaire xam nga euh, film bobu di Titanic je pense euh, Leonardo bu mu wanee Rose euh, ki bi ki bobu nonu portrait bi mu ne ko waaw ça c'est extraordinaire pour wax na na rek juste que peut-être yow bo nekkoon Europe wala <laughs> wala nga nekk européen wala américain xeyna di nga weesu ni fi si sa discours déglu naa la nga ne bi nga nekkee xalé amour loolu da nga ko da nga amoon amour bobu si nga commencé won di def ay ay dessin di ñaaxaale rek ñi nga xamné né ñom ñoy parents yi chaque fois ñuy bayyi xel ñi nga xamné né ñom ñoy sen seen doom ci buñu nekké ndaw ñuy bëgg yenn affaire yi parce que en général buñ la télé jappalé ci benn affaire euh bo boo moytuwul euh, di nga di nga gaaw yegg fi nga fi nga fi nga bëgg jëm légui yow tay amna expérience bo si am est-ce que yeen ngi xalat xalé yi peut-être di leen defar ay activités wala dem ci école yi peut-être di ngeen mën a euh, identifier ay xalé yo xamné né bëgg nañ euh, melni yeen wala am expérience bo nga bëgg ngeen xam ne am ngeen ko. Euh, merci beaucoup té comme ni nga ko waxee tamit sénégalais fi dañu am tendance di euh da ngay nekk si sa beneen optique li nga bëgg ba ngay nekkee xalé dañu gis ni que yow yaa ngi si lii mais je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à te genre, pousser quoi, dans Est-ce que c'est pour ne pas prendre de risques aussi Bon, peut-être c'est ça aussi, mais à un moment aussi, bon, il faut aussi euh, accompagner, quoi. Voilà, accompagner quoi. Bon, nous, genre, euh, nous avons des projets qui touchent les enfants, comme euh, génie artistique des enfants. Mhm. euh, parce que la plupart dañuy seetlu bu ñuy def graphe si mur yi am na ay mag yu romb di apprécier tout mais ñuy nekk suñu ginnaaw yëpp di ñu sonal di jël suñu bomb rek di daw ay xale la ñu nekk. Mhm. tu vois mhm. euh, dañuy def ay atelier tamit ak xale yooyu noonu si def nañ ko centre culturel euh, si centre culturel bu nekk passé la. Mhm. bon étant donné que Fala laa nekk. Mhm. def nañ ko tamit euh, si biscuiterie bon léeg-léeg tamit ñu dem ba si biir école yi si vacances yi juste gis un professeur mu wax ñu yan élève ñoo gën a bëgg affaire de dessin truc genre. Mhm. d'accord ma que leen après ñu defoo ñoom ay atelier. très bien merci beaucoup euh, de son vrai nom mu ngi tudd Makhaz Arkam Niass ñu koy Man. maan donc moom mooy Ganou, ki nga xamante ne moom mooy borom plateforme culture Moïlène Sarr un artiste un plasticien un portraitiste n'est un graffeur donc Légini, top chrono C'est parti euh, pour euh, démon bi nga xamantene ne nañu nga def ko ci bébé et maman ci nous rek ñu and ak mom euh, bébé et maman tay néna na li présenter présenté la première application ludo éducative africaine pour les enfants qui s'appelle Mia Moke c'est tout de suite

valeur la bokk euh, moo tax ki nga xamné né da créer mu gis ah il est temps kat euh, ñun africains ñu defar li nga xamné né suñuy doom yi suñuy ndaw yi buñ koy seetaan ñom dinañ si euh, mëna gis li nga xamné né mom moy Mia Moké ñu tuddé ko première application Ludo éducative africaine pour les enfants Manam, xale yi dinañ ci mën a foo dinañ mën a euh, reetaan dinañ mën chanter waaye dinañ mën a jàng ci biir application bobu non lu len fay jàngal euh, moy voilà xalé bi ci bopam Mia Moket moy personnage principal bi mm. euh, xalé bi mom mu ngi dund Afrique fii Afrique di village à travers ses aventures mom silay à travers ses aventures euh, di chanter ak euh, di len wayal mais aussi di len jangal lan environnement lan tax ñu war ko préserver di nature euh, écologie à travers ses aventures daf len faire découvrir l'Afrique hmm. au fait li nga application à la place suñu leen di wan mooy ay euh, Barbie wala ay Hello Kitty moo tax application bi xale yi buñ koy seetaan dina mën a tax ñoom ñu mën a identifier wu voilà gis nga xale wee ngi nii moom mm. mooy euh, Mia Moké voilà si village am la nekk nga xam ne dafa am ay <laughs> waaw ba tey mën nga ko euh, tuddee noonu mais en tout africain nom bi mm-hmm. nom bi boo ko déggee rek xam nga ne c'est africain tubaab yi ñu ngi jël ay Barbie <laughs> pourquoi pas mënoon na tudd Ajara mën na tudd Adjara déjà Adjara Moké léegi Adjara Moké Adjara Moké déjà tur tuh rek boko ko déggee c'est c'est africain aussi nga seetaan ko gis image yi xale yi dinañ mën a dinañ si mën a projeté wu parce que eh, Mia Moké eh, dafa leen ci jàngal lu ba pare contenu eh, bi dafa riche dafa riche amna ay page yu te amna na ay histoire yoo Qui euh, di Miyaamoke daf leen siy jàngal lu ci mel lu jëm ci animaux yi mais surtout lu jëm ci mbirum euh, nu ñuy préserver l'environnement boo gisee sax Miyaamoke mon ci euh, environnement bu muy dund ci village vous noonu dëkk boobu dañ fay trier ay déchets mhm. dañ fay trier ay déchets bu ko faire xale yi buñ koy seetaan ñoom dinañu gën a xam li nga xam ne ne moom mooy mhm. environnement ba pare dina tax xale yi tamit loolu mën leen captiver mu bañ mon mu bañ a fort. rek foo la application bi dañ koo déjee au divertissement mm-hmm. waaye tamit surtout à la connaissance de l'environnement xale yi dinañ si mën jang, jàng tamit dinañ si mën a pour wax rek parents yi il faut que xale tamit ñun bu euh, mm-hmm. nakarlu di wax ne ne waaw suñu doom yi xale yi léegi kenn xamatu ñu leen di mm-hmm. la parce que tamit de leen di wan lo xam ne ne si la ñuy mën a di seetoo léegi nag genre application yi nga xam ne comme miam ok. Euh, dafa nek ben exemple à suivre de ce fait xale yi dinañ si mën euh, retrouver bagage intellectuel bee fi euh, matériel bee ngi fi pour que genre initiative nous ñu à ko di ko jël développer lo xamné né képp kuy africain doomu africain di ci si gis sa très bien c'est important merci beaucoup Fatima dinañ ci ñëwaat légui ni limuy wax mu am solo la première application euh, ludo-éducative africaine pour les enfants qui s'appelle Mia Moké mënoon na tudd Adjara Moké wala Fatima moqué wala Leena moqué. pourquoi Penda moqué loolu muna Nek. Euh, mais c'est important hein, c'est important parce que tout simplement aujourd'hui on se retrouve mhm. dedans euh, africains yi dañ ciy gis parce que boo boo seetee ci lépp li nga xamante rek. Mhm. Euh, évoluer en général. Mhm. de faire lu jugee ci Occident bi hein. donc boobu boo xoolee tey Leena ay Mardi Gras par exemple les gens qui xale yi bu ñuy déguisé wu ay princesse ak la reine des neiges les <laughs> hein, parce que loolu lañ hmm? di wan. lañ di ah. très bien hmm. Alena. parce que man euh, dama koy exemple ne vivre donc hmm. man j'ai été témoin de ça euh, si internet bi donc da fay tam di seetaan ay dessins animés justement comme yi mu doon cité nga xamné ci dëkku nasaraan yi lay jógee. Euh, la petite benn jour daf ma posé question mu ne ma lu tax moom amul karaw yu dudd <laughs> comme dessin animé bi donc ce genre d'initiative man je trouve que c'est bien. parce que da ngay gis de plus en plus aussi xoolal Noël bi rek cadeau yu bëri yo xamné ni fi lañ ko defaree Sénégal. Mm. poupées yi dañi mm-hmm. ñuul mm-hmm. am ay fatou mm-hmm. ak genre yoyu donc des fatou des ajara. pourtant ñun am nañu am nañu am nañu ay ay ay jambar ah ñoo xamante ne marqué nañu histoire réew mi bi wala histoire Afrique ah, ñu war a di référencier ci ñom surtout ay Mardi Gras ah boo naree jël sa doom nar ko solal ay euh, la reine des ah, neiges nga solal ko Aline Sitoé Diatta euh, ah, wala même dans cette même optique gis nga ki wu moqué bi ni sama côté il y a une boutique bo xamanteni c'est ça s'appelle Mia Moqué mm. en fait defe naa ni fofu le sax ñuko ko ñu créer fa lañuy nek di acti di activé wu ngay gis parents yu bëri même même même ay ba lañ fay ñëw peut-être pour que ñu mën def mélange bi parce que comme tey ñu ngi jënd poupée tubaab bon nous tam ñu gën a inter pour racisme gën mhm. euh, a mën a mën séparer ci ci société bi en même temps il mhm. y a aussi pour les poupées Barbie j'ai une amie boo elle le fait Elle, ay poupée Barbie lay defal euh, di ko Jayat. donc da leen defal ay taxañ Yoy. yooyu mhm. mooy lii leen doon wax léegi faatu yeeg donc ah. c'est très bien que ñu jot ay mëgg ay musmuralit <laughs> très bien avant ngay jël cadeau. moom fàttali la ne euh, ñi yor ay bambinerie ah, ak ñi yor joué yi mhm. ñu ngi lay seet nee nañ nga dem seeti leen mhm. ngeen waxtaan ñu xool ñoom tam naka la ñuy def ba jàppale la ci sa liggéey ndax dañu ne euh, ñoom dañuy gis seen bopp saa su ne si boo mhm. ñëwee les mardis et les jeudis mais attention boo demee si ñoom partenariat il n'y a plus <laughs> euh, man damay euh, rebondir ci Mia Mokami parce que day ils itam vraiment ñuy delluwaat sur suñu culture comme nous nga parce que nous sommes au XXIe siècle l'Afrique doit avoir avancé, avancer nous avons toujours di à wu ci avons beaucoup de culture Nous maintenir beaucoup de la plupart histoire Nous dañoo am suñu propre histoire Et l'une mel nii boo ko li nga ciy comme idéologie comme li ngay jàngale day refléter histoire africaine. Afrique léegi ngi wax comme yow ma ne bien. parce que ni nous sommes comme man au moins. voilà léeg-léeg Nous comme man léeg-léeg marron espérons que xees <laughs> non non pas xees. ah non mais marron na xam naa non non chocolat parce que top top dina xam nga top <laughs> voilà ce que je disais pour hmm. finir faw ñu delluwaat vraiment ñun ci suñu histoire xam moom mm. xam naka la ñuy fexee ba ñun africain parce que ay xale yi ñoom ñooy màgg te boo yaree ci yenn itam mm. boo màggee itam bu ñu itam ci yooyu rek la topp jaajëf Mame euh, vous êtes papa mais euh, je suis papa ah, mais delluwaat ah. bi aussi foog ñu xoolaat ko bu baax. lan bi delluwaat bi. delluwaat bi waaw fi ñu koy jëlee foog mu sori. Mhm. parce que ñi ci war a jàpp moo bari. déjà ci kër yi. Mhm. waxuma la sax ba ci état bi. Mhm. parce que am na loo xam ñoom ñoo war a commencer. ñu dugal ko ci kër yi. kër yi tamit jël ko génnee ko ci mbedd mi. bu ñu ko jëlee mbedd bi tasaare ko. d'accord parce que aussi dafa am loo xam dafa jiitu xol yi ba pare. dafa jiitu xol yi jiitu xel ba ci internet bi tey. il faut que ñu waxante Tay, ki koy defar man je crois jublu ci woon ci lu bon. Mhm. mais tey sa waay da ngay gis koo xam dañ koy jël filmer ko génne ko ci internet bi. Mhm. te koo xam day am njaboot. Mhm. am yaay ami doom. mbir mi nañ ko seetaat sëñ bi. foofu dañuy woote prudence ah. c'est important euh, dafa am looy joxe rek moom bu ko defee mu tëj ko en beauté parce que xam nga Fatima. moom rubrique am da koy poñe. <laughs> dina koy bëgg bokk nag waaye da koy poñe parce que dafay nopp rubrique bi. non mais pour vous dire ah gis nga même euh, ñun. africain ñun du raciste entre nous Bala lenn di am Bala ñuy ŋàññi naan dañuy andil du imposer ñun tamit war nañu euh, un peu tolérant envers nos frères c'est-à-dire daf may gën a ñuul man mais da ngay gis dañ koy tooñ dama moom a gën j'ai même vu ça sur sur Noir, noir. Noir au fils de la nuit affaire yooyu am na sa benn photo bi sur que le temps yëpp bébé de l'année bi mooy boobu moom xam naa ne duudu duudu du dina rejoindre bébé bu ñuul comprendre nga xam nga kuñ naan na day carbonisé wu baadu dafa ah, carbonisé wu dafa carbonisé wu bébé bi bëti rek ngay gis bloc oculaire bi rek ngay gis xam nga euh, donc c'est des choses yoo xamante même xale yi ko gisee dañuy xool dañuy foog c'est c'est pas normal. que ki gën a Ça fait peur. discrimination day am déjà. dès la petite enfance. Euh, di di wax ne rek euh, en somme lii di euh, Mia Moké application boo xam ne xale yi dinañ mais surtout dañ les di sensibiliser di les conscientiser li jëm ci mbirum environnement te boo xoolee application bi ki ko créé benn sénégalais la mu ngi tudd Karim Gadjigo je pense que je l'ai bien prononcé mm. moom depuis vingt ans mu ngi liggéey ci genre affaire yu mel mais surtout di di inciter ñi nga xamné né ñom ñoy ñooy africain yi ñu commencé nak jublu ci li parce que euh, bo xolé comme par exemple ben dëkk bu melni Sénégal chaque fois gars yi ñu ngi joy parents yi naan waaw éducation xalé yi éducation xalé yi mm-hmm. je pense que lo gis ci ndaw bi lañu wara euh, tambalé genre initiative bi c'est à saluer foog nit ñi commencé ñom tamit di def ay contenu yo xamné ne c'est créatif ay contenu yu riche yu innovant pour que ku ci nekk képp kuy doomu africain nga mën mën mën see gis sa bopp Nicolas di wax né ne ñii di bambineri yi ay wërante la man tamit maa leen doon wër te Fatima bu absenté rek c'est parce que jaboot jeeku tee wala dafa feebar waaye dinaa si def le maximum possible euh, ñoom tamit laa doon seet euh, famille la c'est les enfants bañ <laughs> dina ñëw

bon maman bouja et sa bande actuellement ñi ngi nekk ci benn bon voilà là-bas il y a le chef d'orchestre Il y a le manager Sami aussi on est en train de faire des trucs actuellement ñi ngi ciy mais finalement, ne lancer parce que déjà l'album n'est pas encore dans le marché d'accord mais bientôt ñi ngi déjà déjà y a le clip qui est terminé Inch'Allah, mm-hmm. incha ñi début février vous jouez combien de fois dans une semaine Bon, pour l'instant, on n'a pas encore démarré. Vous n'avez pas encore démarré Mais bientôt, d'ici deux semaines, on va démarrer à jouer. Très bien. Mais lancement album B, Inch'Allah, vous vraiment si début février vous soyez à l'heure. Inch'Allah. très bien ma vais vous nga dem scène en attendant ñuy jeexal nga ñuy en beauté. Ah, voilà, très bien. Donc, euh, c'est important. Euh, mm, li nga ce sera la dernière question à l'endroit de Man. Man mi nga que ne mu ngi dessin bu mucc ayib euh, bi nga xamante ça a parlé de bébé et maman moom tamit mu nar ci la dernière question. <laughs> Mhm. parce que Man dañu nous na ni que quand jot nga voyager ci sous-région bi aussi jot nga participer des projets comme Google Art Project moom nekkoon pour Google Apatridi ak li nga organisation des Nations Unies jot aussi exposé ci euh, biennale euh, Dakar euh, mais juste yan projet ngay waajal fi mu na toll nii. man del dessiné di wax. continue sëgal rek waaw may nañ la waxal rek rek. bon pour le moment man maxi ngi ay projet yo xam bon c'est des projets personnels mais si projet ñu gëna nek étant donné que instant dama engagé au ci euh, groupe la nek bu wax RBS projet ñu gëna nek c'est euh, des projets yo xam te ne nii projet de groupe là bon euh, comme il s'est mené ni euh, bon il y a des projets chaque année dañuy def euh, dañuy def exposition chaque année bon xam te ne nii du bokk ak exposition bu ñuy def pour biennale étant donné que tamit day am teewul tamit dañuy def ay jam session jam session euh, genre day mené comme concert mhm. si bu nekkee rap mais bii bii du nekk étant donné que ay graphe la dañuy génn def animation et tout euh, dem def ay murs. d'accord euh, ay jam session lu muy nar a am si euh, si année bi dina bëri trop. Mhm. bon yooyu kañ la nar a commencé. déjà président commencé nañ def nañ defagum nañ benn jam session. si mhm. mois de si janvier bi nii d'accord. bon amna ben benn bu ñuy waajal si. Euh, en février invité ma ma ànd ak Léna Sarr ñu ñëw seet si. looy bëgg ànd ak man nii incha allah incha allah ku bañ ànd ak yow <laughs> ah. incha allah amaan waaw est-ce que. mu ngeen war ngeen mën a couple ngeen ñëw <laughs> dinañu neex trop. très bien mais voilà merci beaucoup euh, man ñu bàyyi la euh, nga def le mot de la fin bu ko defee rek ma jox ñi nga xamante ne mooy Abdou Dia et son orchestre et sa bande. bon j'aimerais juste. di comme sang ni ko waxee won sank di gëna ñaaxat yenn euh jeunes yi yoo xam te ne ay jeunes lañ c'est des artistes euh di leen euh si jang bi bon parce que euh, ñu jang ba ñu si bëri ñu am sen bac am na ay jeunes yu bëri yo xam te leen di former ñenn ñi ay élèves lañ ñu si ëpp c'est des élèves ñenn ñi ñoo ngi en classe ñoo ay sixième la ñu nekk ñenn ñoo ngi sem 2 mais ñu jang ba am bac après bon si lañu gëna mëna am tamit yenn opportunité yi ñenn ñi dem. Des formation euh, école des arts. Mm-hmm. bon je vais a y parce que art bu pas si quoi. d'accord mais tout d'abord nous allons... Très bien. Euh, Merci beaucoup euh, de son vrai nom, Mahaz Arkam Niasdi Man. Donc, c'est un artiste graffeur, euh, portraitiste, designer, n'est que graffeur en même temps, n'est que plasticien. Donc, taïmou n'est Ganou, len sarchi, actu culture De remercier monsieur Bouna Sall mom responsable des jeunes socialistes chargé de comme du ministre Serigne Mbaye Thiam Mam Abdou en beauté en compagnie de sa bande bien sûr. Mention spéciale à tout toute la bande Dieng euh, sant nañ la gërëm nañ la bu baax baax jëri ngeen jëf et eh, c'est parti jaajëf leen merci beaucoup souhaité anniversaire ak sama benn jigéen bu ñuy mam Maam Jaara Si ko yalla may amin c'est parti c'est parti الرول xolna xalaat naa yi xool na mama li may nu rol li may jëf di jëf di jëf woowooy te yàlla taxul li ngay jëf di jëf di jëf woowooy te yàlla taxul borom xol yu laabi borom xol yu lee Broccoli ulabi, wow boy, broccoli ulabi. ça, ça, se termine en beauté, bien sûr, en compagnie de Mam Abdoudia et sa bande. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Euh, merci à Man. Man, euh, li nga xamante euh, réalisé Ngoko, ko mu nekk loo bébé et maman lañ ciy gis bu baax a ba tax li am moi tei man ma koi may li nga xamante moi bonus du jour Fatima maman et la tableau bi ah. merci benn bonus gën a ko mag. waaw <laughs>

yalla may la ay seex hein parce que xamna ne ko bëgg njaboot nga yalla na yalla may ay seex très bien merci beaucoup ah, voilà très bien donc on se retrouve demain même sourire même envie toi-même tu sais plus haut plus loin plus fort tous ensemble ah, jëlal xibaaru mbarax yi nga ànd ceeg Modou Mbacké Niang bu ko defee rek programme di continuer di wéy ci DTV vivez toujours la magie de la télé Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tout de suite sur DTV.

bi dañ ko mës a porté dañ ko dañ koy continuer di combat bi du combat buy arrêté C'est un combat de développement c'est un combat de longue haleine di leen encore une fois je suis très fier de faire partie de je suis très fier de faire partie de la fête